Euh, man maa ngi tudd Mamadou Sakho euh, vice coordonnateur du réseau des enseignants républicains de Guédiawaye euh, coordonnateur communal de la commune de Wakhinane Nimzatt. mën nañ xam lu waral ndaje bi tey. waa ndaje mi li ko waral mooy dañoo gis benn fëlëxoo bu am ci parti bi fii au niveau de Guédiawaye ñu bëgg en tant que enseignant nga xam ne réflexion mooy suñu xalaat bi ñu xalaatee ba pare def benn lël ñu génn pour wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci département Guédiawaye ñi nga xam ne ay responsable lañ ak ay euh, militants yëpp ñu delluwaat ci retenue ak discipline de parti ak entente ak union loolu moo waral tey ñu woote fii beneen bi ci topp mooy waa commune Golf Sud ñoom ñoo ñu invité fii tey di xamle ñoom ci seen xalaat ba ñu xalaatee ñoom xool li nga xam ne moom moo xew ci Golf Sud ak candidats yi cambar leen ñoom ñëpp xool seeni niveau d'étude xool ñoom li ñu def ci géejawaay en tant que responsable politique ñoom dañu jël ne xalaat ne Lat c'est le meilleur choix dans la commune de Golf. man la Ndeye Atagnan voilà je suis membre du réseau des enseignants républicains particulièrement dans la commune de Golf Sud. waa ndaje tey bi comme ni ngeen ko déggee rek sànq du dañu daje tey uniquement pour féddale suñu kóllëre ak le président Lat Diop. di wane ne APR benn famille la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar li am solo daal mooy na ñëpp ñëw ñu li l'union fait la force ñu boole suñuy doole jàppale le président Macky Sall parce que loolu mooy objectif principal bi ñun ñëpp nañ ñëw boot ci ginnaaw le président Lat Diop investir ko pour la. non ñu ngi ko xam nga ñu ngi koy maintenir président moom moo am li nga xam ne moom mooy euh, baat bu mujj bi mais ñun am nañ droit en tant que des enseignants nga xam ne suñu xalaat mooy la réflexion. ñun ñu aviser président taxaw ci kanamam ne ko kat choix bi boo ko defoon dina gën ci Golf Sud parce que kii avant nga koy nommer dara ma nga ca di def la mu mën kon tey bu fekkee ne moom nommer goo ko muy def boo ko defee kon dina def triple bi loolu rek moom la mais du du indiscipline de parti ba tey ñu ngi déglu le président de la république rek. non loolu xam nga man en tant que départemental man dañu ñëw ñu invité ñu mais déglu nga léegi conférence de waa Golf yëpp enseignants yi fi nekk ñoom ñoo booloo ne ñoom. Lat Diop moom mooy seen candidat loolu kenn mënu ci dara te ñii ñooy les enseignants yi nga xam ne ñooy les enseignants républicains damay bañ comme ni ñu def ci COGER ñu def ñu ko bu kenn usurper suñu suñu structure ñun ñii ñooy les enseignants républicains ñun ñoo jëloon suñu mille parrainages yóbbu ko ci Aliou Sall jox ko ko ànd ak moom ba président gañe kon ñun ñun ñoo am habilité wu wax au nom de de cette structure la mais du keneen. waaw li ñu mën a tënk mooy dañuy sant yàlla parce que déjà ay enseignants fu ñu daje rek dañuy sottante ay xalaat. te lu ne mën na fa jóge ay perspective lu ne mën na fa te gëm nañ ne ñeneen ñi nga xamante ne dañoo nekk ci réer danañ ñëw ba fekk si ñu gëm nañ loolu parce que lii nii mooy dëgg lii ñu def nii lii mooy dëgg kon ñi juum nekk ci erreur nañ ñëw bokk ak ñun famille bi ñu boole ñun ñëpp boole suñu doole jàppale le président Lat Diop jàppale le président Macky Sall parce que président Lat Diop li mu def commune Golf Sud kenn natable wu ko wax nañ ko sànq boo laalee éducation mi ngi ci fourniture yi mi ngi ci lépp boolaalee laalee wàllu santé domaine boo dem le président Lat Diop ma nga fa koo xam ne danaan def te dara xewagul kon kooku boo ko joxee mu def lépp loolu kon ñeneen ñi nga xam dañoo réer dañ leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw fekk suñu ñu booloo xam nga échéance yi ñëw na ba pare janvier soreetul ñu ñëw rek jël le président Lat Diop porté ko à la mairie de Golfe Sud moom la ñëpp bëgg yàlla nañ ko yàlla may